mbokk yi nii bàyyi xel fu mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk biti réew tey bàyyi xel seen seen bu am solo bi muy la grand secret wolof ñu ngi leen di waxti asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bi ñu santate yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi jaajëfal mboolem mbokk yi ni bàyyi xel ak fu mën a ne mbokk yi tey dañu fas yéene ànd ak yéen ci benn secret bu am solo muy secret boo xam ne Jigen juy sëy te bëgg jël ëmb wala góor go xamne da ngay ànd ak sa soxna te doom jafe leen nga bëgg njaboot secret bi ñuy joxe ni boko ko defee rabbi suñ borom dina la tawféexal doom ci nim gëna gaaw allah waaye bala ñuy gëna sori ci secret bi rek dañ la wax yow mi gan ci paas bi boo abonné gu ci chaîne bi ñoo ngi lay wax nga abonné te partage vidéo bi mu gëna yaatu ndax mboolem vidéo yi ni dugal yépp ay vidéo yi njariñ la te njariñ nag moom nu mu gëna yaatu ci la gën dila wax yow mi nga xam ne da nga bëgg def lu seet wala nga bëgg def lu listixaar moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew te bëgg ku la defal benn ci ñaar yi mën nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 wala nga contact ñu ci 77 668 28 28 boo dee da ngaa nekk Gambie ak li ko war nga contact ñu ci numéro Gambie bi numéro yëpp ay numéro WhatsApp lañ mbokk yi nga xam ne dañuy tuwa garab gi muy garab yi kàttan yi moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew garab yi disponible aan na mën nga ñu contacter ci numéro yooyu rek incha allah man di nekk dañ ci jot ci ni mu gën Amboki ah, yi dañ leen fatali tuuti rek ci njariñ yi nga xam ne garab gii di musam làmboo na ko mbokk yi garab gii di musam dafay yokku kàttan bu baax dafay yokku maniyu bu baax dafay dundal walax njaan garab la gu bari njariñ lool képp ko si rek mën nga ñu waa mbokk yi yow mi nga xam ne da nga bëgg njaboot wala ngay jigéen di bëgg jël ëmb wala ngay góor ta njaboot jafe la defal lii fexeel ba bind lu bayitu bord bi ak ay alquran bii da ngay bind waxaalifu nafsa wa saytaane wax simxuma weenxuma maabdaka anfa fattaoni ba noppee nga bind wasaariyaati sarwan fal xaamilaati wexran fal jaariyaati yusran fal muxazimaati amran lii nga fexe ba bind ko juróom-ñaari yoon moom nga koy bind def ko téere takk bindaat ko fukki yoon ak ben fukk yoon ak benn def ko saafara yéen ñaar ngeen naan ci nga bindaat ko fukk yoon ak juróom-ñett nga bindaat ko ko ngeen def ko saafara yéen ñaar ngeen sangu ci incha allah lii ñuy wax boo ko defee nii bu ngeen àndee sëy suñ borom mën na leen a fexal njaboot ci lu gaaw a gaaw a gaaw mi secret bu yéeme yéeme xam moom nañ yéene tey partage ak yéen ba ëllëg ñu dikkaat ak yéen ci beneen secret incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf ba beneen incha allah